dañu fay euh, euh, wuute euh, wurus te yoon mayu leen ko moom la larme bi daal di tas ñu teg loxo nag lu toll ci ñaar fukk ci ay nit yi nga xam ne ñi ngi bàyyeekoo ci diggante Mali ak Burkina Faso mu nekk loo xam ne liggéeyu brigade gendarmerie bu Saraya lañ leen dal di jébbal ngir ñu àtte leen bokk na itam ci li ñuy waxtaanee muy wàllu cinébar ñu jagleel ko pàcc bu yaato yaatu ci bile eh, jotaay ana nan lay eh, duggee fii eh, njeexital bu muy am si wér gu yaramu askan wi ak taxawaay bu fi askan wi am ngi daldi ko fi jëlee rawatina duwaan xeex bi nga xam ne mi ngi koy xeex ngir jële fii li nga xam ne mooy njaayum cinébar si mbokk yi ñaari ponk yi moo nar a gën a fës ci bile jotaay yaatal gi bu ñu bu bàkk bi jibee ba noppi. jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd beeg 7TV yi tàmbalee ko ci tënk ci réew mi Bassirou Diomaye Faye ni dem démb demoon na euh, ca euh, plateforme ba ñuy xoolee wàllum euh, pétrole wile jàpp leen ne foofee nag daal rafet bu baax a baax liggéey wa moom dafa dal di rafetlu euh, liggéey bi nga xam ne daanaka avancé na bu baax a baax waaye itam dal di firndelwaat rek dogu bi nga xam ne moom ak gouvernement dogu nañ ko ngir euh, lépp loo xam ne moom mooy rusé euh, ci petrole ak gaz bi ñu sayku saytu ko maanaam yor ko ci anam wu leer ba tey ci tank wutale ci diwaanu Saraya foofee nag jàppale ne larme ba daal teg loxo eh, ci ay doomi aadama ginnaaw rek ba noonu jëfandikoo nag or bi ci anam yoo xam ne daanaka rek nekkul la ñu santaane eh, toll ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom-benn ñu ci bëri nekk ay doom réew Mali ak Burkina Faso eh, jàppale na nag brigade bu gendarmerie bu Saraya moo def liggéey bi. fanweer ak ñaar ci ay jumtukaay la ñu daal di teg loxo ñu duppee ko euh, drague ñoom militaires yi lañu ko daal di euh, yàq ak yeneen i euh, matériel yoo xam ne moom la ñoom ñooñee doon jëfandikoo ci wàllu liggéey boobee nga xam ne yoon da leen ko tere seen ñoom militaires yi nag seen opération bi nga xam ne dafay wëy la ko waral mooy dañoo bëgg rek fexe ba jële fa lépp loo xam ne activité la boo xam ne teguwul ci yoon ci bërëb boobee. addu ci wàllum drogue na muy euh, lëmbee Sénégal doy na waar rawatina ci diwaanu Ndakaaru diwaan daal dina xamle xabaar googe loole nag tax na ba ñu demoon ci diwaanu HLM foofee nag askan wa fay yeewoo jamono ji guddi gu bët sotagul la ñu nekk ndax euh, lii di wàllu ñàkkum kaaraange goo xam ne euh, jibee na fa te lu ëpp ci li ko waral ñeel nag euh, dorog ba ñu fay jaay seen doom yi di ci dugg loolee nag ni nañu ab kuréel goo xam ne ñu ngi ko duppee coalition anti drogue ba nekk foofee ca HLM ñu sos ko ca atum ñoom ñoo xëy nag bëgg taxaw def seen këmtalaay kattan ba jëlee fa lu ni su bëccëg gi jotee moom dal gu mat sëkkay am fii ci HLM askan wi dañuy doxi seen soxla fàtte jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy dund su guddi jotee ab diir a ngi nii ñuy jànkonteel ak ñàkkub kaaraange gu doy waar. il fut temps amoon na ay moments xam ne dañ daan def patrouille pas plus tard ci ginnaaw boulangerie bi rek agressé nañ fi la matin suñu doom bu ñuy jàngi ci jamono yi saisir nañu la police amoon na patrouille mais maintenant fi ñu toll nii dañu mel ni ku bàyyi loxo. nee nañ nag lii waral lu ni mel mooy sinébar gu bëri gi nga xam ne dafa dugg bu baax a baax si dëkk bi. ñii dañuy gens ñii dañuy pikiiru ñii dañ koy tox ñii dañu koy naan mu nekk ay doom te xam nga nit li gën a cher ci moom mooy xelam nit ki nag bu demee ba àndut ak xelam mooy àndut ak sagoom. Abdoulaye Gueye moo jiite coalition anti drogue fii si HLM ñoom sinébar dong la ñuy xeex ay at a ngi nii yëfi dellu woon na gannaaw waaye jamono gi moom dafa jolliwaat. mais fi mu ne nii euh, drogue bi nga xamante ne moom la xale yi di gën a gën a yab nag mooy mooy cannabis cannabis mooy li ñuy wax yàmba moom parce que dafa accessible te te te njëg gi taxu ko seer noonu. lañ doon xeex yëpp ne nañ tàmbali nañ ko sax di ñàkk li ko waral nag moo di réewu Sénégal bi nga xam ne drogue bi fi dugg kenn xamul nu mu toll yëfi dafa tas ci gox yàq goxaan yi rawatina fii si commune bu HLM. xam nga aussi loo xamante ne saa yoo xëyee yaa ngi koy gis yaa ngi dëkk ak moom yaa ngi rombante ak moom loolu aussi dafay dem ba nga xamante ne léeg-léeg xale yi nga xamante ne léeg-léeg ne naa mos ba xam te ji li nga xamante ne moom la ñuy war a def rek mooy li ma waxoon léegi c'est que ah, ci biir jumaa yi ñu ciy waxtaanee ci biir église yi ñuy waxtaanee ko marché yi ñuy waxtaanee ko école yi surtout école yi. HLM tamit li ko sonal bokk na marché bu yaatu bi nga xam ne dafa am njarata lool fu nekk la nit di joge ci Afrique saw jant di utali marché HLM ubbeeku gi mu ubbeeku moo tax lu nekk fii dugg drogue bi ni ñu koy jëfandikoo doy na waar ci ndakaaru tax nag ba ñu bari jug ca nag di rek euh, ñaax askan wi rawatina ndaw yi ñu deltu ginnaaw ci loolee laataan ci jur ay loraange. bokk na ci euh, ñooñee fële ca Sicap foofee daanaka euh, ña nekk ci mairie ba conseil yi ñoom ñoo daal di yëkkati ay tànk wutali nag askan wa fay yeewoo ngi daal leen ñaax ci li nga xam ne moom mooy jëfandikoo gën a jëfandikoo. ko Sinebar si waaye itam njeexital ba muy am ci seen wàllu wér yaram ñu ànd ceeg Matar Bari jëfandikoo drogue nag bëri na jamono ji ñu koy nimmeeku ci quartier yi nekk ci Dakar saisi yi nga xam ne nag amal nañ ko fan yi ñu génn day wane ne rek mbir maa ngi gën a jéggi dayoo ci quartier yi nga xam ne daan nañ fan nimmeeku dal bu ci mel ni Sicap Liberté mucc ñu ci benn yoona waa ji nag ci gox ba la dëkk am na lu ko métti loolu ci ravage yi nga xam ne drogue baa ngi koy def. Sicap moom vraiment en ce qui concerne mbiru sinébar drogue moom vraiment c'est c'est devenu extrêmement extré léegi moom mooy loolu daal Sicap moom léegi ak drogue moom vraiment léegi daf fi bëri torop torop torop torop. jeunes ay xale ay mag aussi ay ay góor ak jigéen ah y a tous les âges am na âge yëpp sexe yëpp moom mi nga xam ne mooy président conseil de quartier ba nekk ca Sicap Liberté 3 li mu jàpp mooy jëfandikoo drogue bëri na ay facteurs yu koy indi bu ci mel ni ndóol. ñàkk def dara cest à boo leen nekkee ay ay ndaw jànguloo liggéeyoo dafoo dara toog rek. bëgg argent facile bëgg xam nga rek bëgg xam nga jaay drogue am na xaalis bëgg lu yomb. bëggoo liggéey affaire yooyu yu bëri moo koy indi quoi ak tamit bon c'est pas une raison mais dëkk bu metti aussi day tax ba ku ne ñenn ñi di dugg ci loo xam ne war waruñu cee dugg. ngir moytandiku loolu nag ay volontaire ñu ngi amal sensibilisation ci jëfandikoo drogue ak conséquences yu bon yi nga xam ne mën na koo indi. gis ni lii vraiment musiba la buñ ko bàyyee boo xam ne la dinañu mën day lox ëllëg mën naa lox ëllëg suñu njaboot ñu jug ci xam nga fu drogue bëri. insécurité dafay am euh, coow lu bari guddeeg bëccëg dootu leen mën a noppaliku seen seen jàmm ji day wàññeeku et puis risque la aussi pour suñu doom yi. ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal xeexum drogue ci àdduna wërngal këpp bu ñu sukkandiku ci président conseil de quartier bu Sicap Liberté 3 groupe Sénégal war na gën a dolli ay moyen ngir gën a dooleel sensibilisation bi. jërëjëf Mata Bari kàddu gi dañ koy jébal askan wi ñoom itam yeneen yàpp bi jëmale ci dorog wi ñu ko jëfandikoo jàpp ne dem ba indi ñàkkum kaaraange lu ëpp nag si jur yi jàpp ne faaw nag nguurub Sénégal gën a ñoŋalaat dugg bi ak génn bi ci sunu ay euh, frontières su ko defee ñu mën a dakkal sinébar euh, si nga xam ne mi ngi fi dugg ci anam wu doy waa ñu teewlu seen i kàddu mais am na loo xam ne moom vigilance su parents yi la quoi parce que des fois ñooy may seen doom liberté trop ba ba ba ba ñu génnee dañuy def lu leen neex wala parfois ñu gis kenn mu leen influencé ba ñuy jël ko suuf si moom dafa bëri moom surtout booy nekk fii nii mooy loolu te booy léegi Médina dañoo favoriser affaire banditisme. loolu moom rafetlu wu ma ko quoi booy ndaw di suuf si dem si appartement yi ma sama sañoon parents yi téewaat seen doom yi éducation de base bi ñëwaat loolu mooy waral ñuy agressé. waaw di def naka surul loolu loolu daal rafetlu wu ma ko sama mbokk jeunes yi laay woowaat. fii moom lépp bu ñu rek maanaam day métti mais bu ñu defee ndànk-ndànk rek lépp dina lépp dina féetoo boor quoi incha allah rabi yi suuf dafa bëri waaw mais nag xam naa ni moom fii si kalam moom dana dañ suñu réew mi quoi incha allah rabi loolu laa gis dina dañ moom. léegi gars yi dafa xaw a yomb fii quoi ndax mun naa ne fii dafa bëri ay dealer jamono ji léegi ay détails la benn 1000 francs boo ko amee nga benn benn kii 500 boo ko amee di nga toog. loolu nag moo yomb léegi te loolu nag la gars yi war a la gars yi war a souligner bu baax. niveau état bi jàpp nañ ñaata yoon ci drogue bi. am la mooy cest à ñi fi nekkoon dañ fi daan bàyyi affaire bu daan dugg kon nag affaire bi nag am na sérieux nañ ko di gën a téye parce que déglu na colonel bi nee na na am moyen rek boo amee moyen rek dara dootul dugg kon nag nañ ci gën a jàpp. yar dafa manqué ci réew mi rawatina ci ndaw ñi drogue nag nekk na loo xam ne xale bu koy jëfandikoo loo ñemewul def amul. Euh, sa bànneex rekk ngay xool ñiy tax drogue di dugg fii ñooñu la ñu war a ciblé ñooñu la ñu war a joxoñ baaraam na leen ñoom ñoo tax xale yi di jëfandikoo loo xam ne ni kenn war ko jëfandikoo kuréel gi département d'état américain daal ne fësal gëstu wi ñu def atum ren ci 2024 nekk na askan wi rawatina ci Sénégal xoqatal gi daal doona waa rawatina ci diwaanu Kédougou boobu lépp rapport nag mu ngi xam ne ne ay xale yu jigéen yoo xam ne euh, seen at daanaka bu baree ba bëri si euh, fukk ak ñaar lay yem ñoom nag la ñuy nekk di leen sakku ñenn ñi nga xam ne ñu ngi jóge euh, ci ay réew yu mel ni Bénin Burkina Chine ndax li leen di indi itam ay bor la yoo xam ne dañ leen koy fayee toll ci euh, deux millions waaye li gën yées itam bokk na ci ay jàngalekat yoo xam ne lim nañu leen itam ci boobu lépp rapport ñu ànd ceeg Omar rapport bi di fësal ab situation bi nga xamante nag dafa jéggi dayo fii ci Sénégal travail forcé njaayum nit exploitation sexuelle loole lépp ñu ko ci daal di gis ñeñ ca joxoñ baaraamu tuuma nag di ay réseau yu bàyyeekoo ca Nigéria ay chinois itam ay jàngale kat bu ñu sukkandikoo ci boobule rapport nag boobule exploitation fi ñu koy gën a gis moo di Kédougou foofe nag ay jigéen wala sax ay xale yu ndaw ñeñ fay trafiqué nag lu ci ëpp jóge ci dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wër nañ koy defee moo di di servitude par dette maanaam tey say këyit ba nga fay leen koppar gi nga leen yoreel koppar googee nag dina dem ba daal ëpp ñaari million bu ñu sukkandikoo ci rapport bi ba tey nag mu mel ni nag dañ ci daal di jox famille yooyu les victimes li waral ñu koy gën a nemmeeku ca Kédougou moo di yenn gëm-gëm yi ndaxte jàpp nañ ñi loolee dina tax nga gën a am wërsëg booy wër lii di oor ñeneen yi nga xamante ne nag dañ leen di nax di leen sàkku wala di leen jaay moo di gone yi nga xamante ne njàng bu baax la ñu bëgg mu mel ni ay jàngalekat yu nekk ci secondaire yi dañu exploiter sexuellement ay ndaw yu jigéen ñu daal di leen jox koppar wala sax ñu daal di leen jox ay notes yu baax ay touristes itam dañ fi daal di exploiter ay gone rawatina dina liggéeyloo seeni kër Dakar Saint-Louis Cap Skirring ak ci Petite Côte bi boobu les rapport di fësal ba tey nag ay bato yi nga xamante ni nag Chine la ñu daal di bàyyeekoo di liggéey fii ci Sénégal dañ fi exploité ñi fiy nekk bu ñu sukkandikoo ci lim yi nag lu ëpp juróom-ñeent fukk ak benn trafiquant jàppoon nañ leen ba daal di ci tëj fanweer dafa ndaw bu ñu sukkandiku eh, ci observateur yu département américain bi jàpp nañ ñi ñàkkum tàggat itam dañ ko daal di nemmeeku ci magistrat instructeurs yi ñu ñaan rek ba ñu daal di gën a diisal seeni yoxo leneen liñ ci sof moo di guerre ak lii di complicité loole waral nag ay takk der duñu mën a amal seen liggéey na mu ware jërëjëf Oumar Thiam addu jëmale ci kuréel gi ëmb reporteru Sénégal amuloon ni kii démb ak lël waxtaanee wàllum liberté de la presse artukat yi ak itam karange taskatu xibaar yi. bokk na ci la ñu doon waxtaanee muy anam wu jafe woo xam ne yenn saay ñu di si jotee li di euh, xibaar waaye itam euh, nan la ñuy def ba gën a aar ñi ñu duppee lanceur d' alerte mi ngi Maram Ndiaye mi nga xam ne nag mu jiite euh, convention de jeunes reporters du Sénégal moom la mu bëgg mooy. journaliste yu ndaw yi nekk ci terrain bi nga xam ne yenn saa ñu buntu xatal leen ñu fexe rek ba gën aar leen ba gën leen aar ci seen wàllu kaaraange. liberté d'expression doon luy jëmal démocratie tey. ñu amaloon ay waxtaan yu yaatoo yaatu ak ñëpp ñu yëngu ci wàllum tasum xibaar bokk na ci lu ñu doon waxtaanee du lépp lu jëm ci wàllum lanceur d'alerte yi. suñ nee lanceur d'alerte ñun tam dañ ciy gisuñu bopp parce que ñun liggéey bu ñuy def bés bu yàlla sàkk liggéeyu lanceur d'alerte la. mooy quotidien yoo leen bés tey soo leen xoolee am nay quotidien yi génn di ngeen si gis ay révélation révélation boobu du Makumba wala Mademba moo ko def maanaam du un sénégalais lambda ko ko def ay taskat xibaar lañ donc lanceur d'alerte yu njëkk mooy ñun donc ñun itam loi boobu def ñoo amal njëriñ moo taxit it boobu itam lu ñu si bëgg mooy ñu impliqué ñu si biir ba ñun itam lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu baax la su ñun ñu proposé ko nga xam ne su génnee ñun itam dinañ ci gis suñu parce que bëgg-bëgg yëpp mooy ñu am qualité fexe ba lépp lu ñu soxla ci xibaar ñu daal di ko am maanaam accès à l'information loole nag bokk ci li nga xamante ni nii yàgg nañ koo xeex fii ci Sénégal teg si Sénégal doon réew bi nga xamante ni nii dañ koy daal di cité ci lépp lu jëm ci wàllum démocratie looloo waral ba ñoom ñi lay jàpp ni dañoo war a rek am benn loi bi yombal accès ci information yi la. loi sur l'accès à l'information xam ngeen ni Sénégal ay at a ñuy liggéey ci boobu le loi. mais loi boobu boobu ba tey nag mi ngi nelaw si biir tiroir yi maanaam dañ koy tudd rek te demul assemblée nationale te soo leen yëree réew yi nga xam ni moom la ñu wër yëpp am nañ loi boobu noonu. ñu faral di leen dóor di leen buntu xatal saa su manifestation amee ci réew mi reporter yi nag di jànkonteel ay jafe-jafe yu metti seek seen digganteeg takk der yi tax na. ba président convention des jeunes reporters di xam le ni bëgg nañ gisanteeg njiiti réew mi ba li ni mel ñu daal di koy waxtaanee. même à l'école dañuy wax ni soo leen demee sur le terrain xeex am suñu suñu position mooy si ginnaaw FDS yi maanaam ñoom ñoo ñu war a aar loolu aussi reporter nañ koy bàyyi xel que ñun suñu place su manifestation amee fu mu war a doon ñu fay taxaw parce que loolu aussi dina tax ba nga xam ni dina wàññi mbir yi. jëru bi ñu denk wàllum communication Darius Salu te teewoon na ci ndaje boobee fësal ne balaa yàgg nguur gi dina génne média yi nga xam ne daanaka ràññee nañ leen na la mu ci tooftal nag mooy euh, ñii di patron de presse yi mu sàkku ci ñoom ngir ñu daal di euh, sàmmonteeg li nga xam ne moom la yoon daal di tëral bokk na coloole di fay seeni lempo

xool naka lañ koy organiser ba mun a méngóog anam bi nga xamante ni noonu la métier tasub xibaar di doxee ci àdduna bi jamono ji loolu tamit bokk na ñu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne ni moom mooy code de la presse bi leneen lim mooy euh, dinañ publier liste ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy propriétaire entreprise de presse yi ak ñi nga xamante ni moom lañ moom lañ daal di reconnaître li ni mel nag suñuy service dinañ ci liggéey bu baax a baax ngir liste bi ñu daal di koy génnee texte yi tamit di xam le ni entreprise de presse yi yëpp dañoo war a conforme conformé wu ak li nga xamante ni moom mooy yoon war nañu fexe ñoom it ñu xool naka la ñuy daal di fayee li nga xamante ne ni moom mooy seeni impôt. Elles doivent aussi se conformer aux lu mooy loolu dañuy àddu jëmle ci wàllum tàggat yaram ci tënk jàppale na athlète bi te Louis François Mendy daat ne jël euh, talaate ji jàppale ni final bu 110 mètres yi nga xam ne daanaka ñu ngi ko doon amal ci doon du walaaj euh, Cameroun ci diir nag bu gàtt la dafay boobee jàlloore atam toll ci ñaar fukki at ak juróom jàppale na nag fi mu ne daan nañ qualifié ba noppi ci jeux olympiques yi nga xam ne daañu ci diwaanu Paris ci atum gile dëdmal ko ñaar fukk fan ak juróom benn ci jàpp fukk fan ak benn ci weeru août daanaka moom athlète boobe sax depuis meetingu Bonneuil bi nga xam ne réewum France la mu ngi amee woon 18 juin 2019 euh, ba léegi euh, ay performance am dafa doon gën di euh, yokku ndax mu ngi jóge woon ci chrono boo xam ne mu ngi affiché woon 13 59 jëloon médaille door bi ci Jeux africains yi tey ji mu daw ba wàññi ko ba mu toll ci 13 18 mu nekk nag yegg ci première place bi. ginnaaw meeting boo xam ne amoon na ca atum 2019 euh, addu ci wàllu football ak euro 2024 yi xam ne ñu ngi koy bëral waxtu wi nag waxtu dëgg gi jot naa ci groupe E bi lee daanaka ñeen ci équipe yoo xam ne ku ci ne rek daanaka ñetti poñ nga am bu ñeenti waxtu daal bëri dina ca leer ndam rek wala génn ca boobee jongante Slovaquie dina ca daanaka feggoog Roumanie ci jamono jo nga xam ne ni ñaari favori yu jongante nag daañu ko xaar diggante Belgique ak Ukraine. bu 19h jotee nag groupe bi moom moom mooy daal di ñëw ak bu Portugal. bi nga xam ne daanaka Portugal moom euh, leer na ko ne dina euh, jàll ci premier tour yooyu ñu nekkoon euh, ki nga xam ne nag moom mooy Fernandez ak ki ñoñam dañu fas yéene jàkkaarloo ak la Géorgie ci matchu tey bi République tchèque moom it dina laale ak Turquie di fàttali rek ni ki démb Euh, amuloon benn ndam boo xam ne jóge woon na ci euh, jongante bi doxoon ci diggante Danemark ak euh, Serbie diggante Angleterre ak Slovénie tamit ndam demul ndam dikkul Autriche moom daanaka moom moo dóor Pays-Bas ñetti bal ci ñaar ginnaaw match boo xam ne dafa tàngoon lool ginnaaw loolu itam Kylian Mbappé mi nga xam ne jot na football ngir réew ma France waaye taxul euh, benn yoon France daal di gagné Pologne daan ndax dañoo daal di euh, témbo euh, ci seen match bi nga xam ne jongante nañ ko démb. addu jëmale ci Copa America ba tey jii ci wàllum tàggat yaram jamono ji nag Équateur faaw rek mu def kéem tolluwaay kàttanam ngir dellu si ginnaaw rek bu mu lajee ci euh, bëccëgu njëkk gi digganteem ak Venezuela jàppale ne nag dina laale ak Jamaïque. si ñaareeli bis bi nag jàppale ni Canada ak Argentine ñoom ndam lañu am ci boobu lépp ñaareeli euh, bis ndax nag euh, lu ci mel ni Argentine ñoom ñoo am ndam ci kaw Pérou benn baal ci dara fi ñi nga xam ne nag. Euh, ñoom ñooy euh, Canada moo am ndam ci kaw Pérou Argentine moom it mu daal di am euh, ndam ci kaw Chili benn bal rek la dugal benn bal boobu nag ko dugal di Martinez Lautaro moom moo ko daal di dugal. jàll ci ponk bu mujj bi day ñëw tey dalee nag jàmm dogal bi bàyyeekoo ci defarkatu fariñ yi di woy di amal seen liggéey bokk na ci li yéenekaay yi xëy waxtaanee ni ki tey jii association bi ëmb ñoom defarkatu fariñ yooyee bu Sénégal dañoo xamle woon ci week bi weesu ne dañuy dakkal lépp luy production farine ngir fësal seen ñàkk déggoo ci wàññi njëgu mburu bi ci fanweer ni ko gouvernement bi defee waaye Sud Quotidien gis na ne ñoom defarkatu fariñ yooyee dakkal nañu seen jàmmarloo ak kilifa yi ginnaaw bi nga xamante ne nag gouvernement bi dafa amal ab mise en demeure teg ci xamal ne ay ndaw gouvernement bi dina leen yebal ngir ñu dem xool ñoom defarkatu yoo yooyee seen stock fu mu toll waaye tamit fexe moytandiku benn yëngu-yëngu bu leerul lu néew fukki waxtu ak ñaar ginnaaw bi ñu fësalee lu ni mel association bi ëmb defarkatu farine yi nekk fii ci Sénégal dal di dakkal coow li buñ sukkandikoo ci Sud Quotidien le quotidien le quotidien moom gis na ne meññe yi bàyyi nañu lépp mu sedd ginnaaw ba conseil national bu patronat bi ak syndicat bi ëmb industrie yu Sénégal yi amale ab waxtaan bokk ak moom gis-gis l'observateur dikk ci yooyu la waxtaan ni mu demee mel ni ku leen di kokkali bés bi le jour moom gis ne meññee yi teg nañu lépp ci suuf meññee yooyee nag deltu nañu ginnaaw ci kanamu pression wu nguur gi di gis-gisu quotidien bi di laas wala sax fu Quotidien ne ko dañoo sedde ci doole wu nguur gi patron wu minoterie yooyee mer ba fottu la ñu def waaye nag dañoo jël dogal rek dal di tegandi lépp luy grève ci suuf bu buñ sukkandikoo ci le quotidien mi nga xam ne pain béniche la ko dal di duppee yeneeni sujet it yéene yi xëy nañ waxtaanee ko le soleil visite bi nga xam ne njiitum réew mi amal na ko ci plateforme pétrolière bu Sangomar Bassirou Diomaye Faye mbégte la fa jëlee ndax ne Sénégal yi dañoo xarañ libération moom itam àddu ci boobule sujet dal di dikk ci kàddu yi nga xam ne moom njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye yëkkati ko di xam le ne mu ngi gën a dogg moom ak nguur gi ne dinañu amal yorin bu sell te tolloo ci ressources yi nga xamante ne mooy bàyyeekoo foofee jagleel ko askanu Sénégal enquête moom di ñu xamal ne élimaanu bi di Ousmane Sonko joxe na ay directive ngir fexe mën a financer ak sa programme développement bi nga xam ne ñoom kilifa yu yees yi bëgg nañu koo taxawal beneen sujet la àddu muy rapport bi ñeel département d'état américain bi ci jënd ak njaayu nit yi ak trafic humain fii ci Sénégal loolee tamit yenn yéenekaay lu ci mel ni Vox Populi waxtaane na ko muy xam ne ne gouvernement bu réewu Amérique dal dinay joxoñ baaraam daara yi maître coranique yi réseau d'état yi di sàkku ci kilifa yi ñu dal di gën a ñoŋal boobu la liggéey amal ay lonket ba ñu teg ay daan ñi nga xam ne dañuy tamit ay daan ñi nga xam ne ay trafiquants lañu département d'état boobee nag teg na gët enseignants yi touristes yi ak nigérians yi noonee la ko les ko gisee leneen lu libération xëy waxtaanee mooy ñeenti milliards yi nga xam ne dañu ko détourné te mujjul fenn ndax ginnaaw ubbi nañu ab l'information judiciaire ci septembre 2021 waaye ba tey daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ca takkee wala ñoo ca laalee kenn sonalu leen ci dara di leen jaajëfal kenn dalub jàmm canta ngërëm ñel na ko moom Awa Diallo mbokki jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal lu baax ci teewlu bi ànd beeg seen TV man mbégte fegoo ci ak Diaw Cissé jaajëfal nañ la bu baax Suzanne ñu ngi jaajëfal mbokki ñu doon teewlu dinañu gisante ci kanam tuuti ci waxtu lay doon ci kàllaama nasaraan ak wolof ci tënk jaa ngeen jëf